bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaa bismillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki àddina bi dellu siwaat nañu di àndaat ak ci seen émission bii di aaxiru zaman di jaajëfal ñi nga xam ne ni yëpp ñi ngi bàyyi xel émission bi fu nu mënti nekk ci biir réew ak ci biti réew di jéggalu ci baat bu xaw a xoddoos bi ndax fanoo xaw a soj jamono yi soj mi bari na tabaarakallaahu ci senegal la mbokk ma doon wax ne jàngoro la jumatul jàngoro te ëpp jàngoro tabaarakallaahu noo ngi ñaan sunu borom mu saafara ñi tawat ñëpp moo xam ñi mu tëral wala ñu koy doxaale loolu sababoon na émission bi weesu ànduñ ceeg yéen ak yeneen yitte yu ñu nekkoon tey nag ñu ngi ñëw ci émission boo xam ne actualité la am yenn nat ci ñi bàyyi xel aaxiru zaman wala ñennat ci ñoom ñu ko doon sàkku doon sàkku ngir ñu waxtaan ca lay xew fële ca Palestine donte nag euh, am na ñenn nat bariwuñu gaa ñoo xam ne dañ naan waaw lu tax ñu bàyyi fi li xew ci Sénégal di waxtaanee la xew ca Palestine ñooñu xëy na du ñuy topp aaxiru zaman <laughs> ñooñu duñu wax lu mel noonu euh, aaxiru zaman moom liy xew ci Sénégal la ñuy waxtaanee fu ñu toll daa fekk ne nag euh, en tant que jullit li nu sunu diine jàngal bokk na ci euh, dañoo war a mel ne jenn jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko jàngal ca mathalul muminina fi tawaddudihim ba xaddis ba jeex jullit ñi ni ñu war a mel ci soppante ak yëgante ak li dal ci sa mbokki jullit mel ne sa kaw la dal daf ko misaalee na jenn jëmm ne jenn jëmm nag amee luy metti ci tànk yaram yépp koy yëgandoo su amee luy métti ci nopp yaram yëpp a koy yëgandoo su amee luy métti ci gët yaram yëpp a koy yëgandoo mu ne jullit ñi noon lanu ñu war a mel jullit ba ca Palestine jullit ba ca Israël jullit ba ca Amérique jullit ba ca Màkka jullit ba ca London jullit ba ca Turquie jullit ba ca fu mu doon ci àdduna bi réew moo mën ci tudd lu muy dund bu dee mbégte la mbégte jullit ñëpp la war a doon waaye bu dee tiis la tiisu jullit ñëpp la war a doon Palestine la ñuy dund Israël di leen ko teg fi mu toll ni bilan provisoire bi rek bi ñuy waxandi yàgg na ci juróomi junne bakkan yu teg yu Israël rayagum ci diir bu gàtt cinq mille et personnes lu mat dix-sept mille ñu gaañ leen fukki junni nit ak juróom-ñaar yu teg ñu gaañ leen ñu nekk ci hôpital yi di faju ñoo xam ne nii sax dañu dem ba tere leen ñu mën a faju ndax jumtukaay yee tax ñu mën a faju Israël dañ ko boloke ngir bañ mu dugg ci hôpital yi yamuñ ca waaye dem bay bombarde hôpital hôpital bu mel ni Mahmadani nga xam ne nii bomb lañ fa sànni juróomi téeméeri nit faatoondoo ci saasa loolu ci semaine bii la ko Israël def lu mat un million quatre cent mille nekk way daw làqu génn seen dëkkuwaay yanu seeni saak bokk seen njaboot dem wuti fu nu làqu ci maa ngi gis benn publication ñu ne dafa am boroom kër guy wër soxnaam ndax faatu naam faatuwul mu dem fekk soxna sa ma nga faatu boq doom ja doom ja faatu lu tiis lu mel noonu nag ku am yëg-yëg ci kaw suuf naan waruñoo yitteel ko ko xawma ban saaru nit nga doon ci kaw suuf loolu am na ñennat ñu koy wax waaye wax jooju nañ ko jël teg ko fële li xew ci Sénégal ci ceeb bu seer bakkan yuy rot injustice ci naqarlu ko lañ dëkk ak dénoncé ko waaye nag du tax nag ñu ne na yem ci fii rek bàyyi fële loolu xalaat la boo xam ne du xalaatu jullit ab jullit du xalaatee noonu du xalaatee ne ñun li nu dal rek na nu yitteel waaye la dal sunuy mbokk ci métit bu mu nu yitteel loolu du xalaatu jullit ba tax na léeg-léeg nag kii euh, gëstoom xootul ci diine yëgul li xew ñu mel noonu mën nañ la influencer sax ba nga yaakaar ne yow mbirum Palestine warulaa yitteel ndax senegal li fiy xew loolu rek doy nañu sëkk mukk loolu bu ko kenn wax nekk ajigam loolu moo tax ñu jagleel émission bi tey Palestine ak bunduxataal gi leen Israël di bunduxataal waxtaane ko dénoncé ko ñaawlu ko ngir euh, bu yàlla dogalee ëllëg ñu taxaw ci kanamu yàlla mu doon mën a doon sax sunu lay ne ah mënuñ ca woon dara kat waaye nag naqari woon nanu ba defoon nañ ca sax émission am na rassemblement bi ñu ci waajal ci samedi ji nu dëgmal fas yéene nañ caa di woo ku ko mën nga teewee ko ca grande mosquée incha allah grande mosquée lañ koy defee bu 15 heures jotee le 28 bii ñu dëgmal euh, bu soobee yàlla danañ ci dikkaat balaa waxtaan wee jeex ci ko loolu baax na ñu def ko ne li ñuy tuddee tamhid lal lal laltaay balaa ñoo dugg ci waxtaan wi ndax ñi ngi gis yu mel noonu léeg aw nit di ko wax baax na nag ñu xamal leen ni loolu du xalaatu jullit du xalaatu jullit laa yuminu ahadu ku yuxiba yu axihi maa yuxibu li nafsi akay loolu lañu yenent bi sallallahu alayhi wa jàngal jàngalekat bu mag bi dane kenn ci yéen du doon aji gëm lu dul lim bëggal boppam daf ko bëggal moromam yow bëggal nga sa bopp justice bëggal nga sa bopp jàmm bëggal nga sa bopp boo feebaree faju am sa mbokk yoo xam ne ñu ngi leen di teg injustice ñu ngi leen di rey ñu ngi daaneel ay immeuble ci seeni kaw di rey ay xale di rey ay jigéen te ñi koy def di ay bandi yoo xam ne ay bandee leen ngemb nga ne loolu buñ ko dénoncé mais yow tamit injustice bu ñu lay teg fii keneen bu taxawee fii ne buñ ko dénoncé xanaa kon yow boobaa du la métti mbir mi tëddeewul noonu ku ne rek nañ ko bàyyi lam man ci lii xew lu mu ci mën a dénoncé mu dénoncé ko lu mu ci mën a xeex mu xeex ko te nga nangul ngànt ne kenn mënul xeex yépp ni nga xamee ne yow mi wax loolu mënoo xeex lépp waaw loolu bu leeree ci bopp yi nag danañu may benn dënn bu yaatu ñu mën a déglu waxtaan wi man cee jëriñu mën a xam li xew mën a xam it ban taxawaay lañ ci war a amal kenn ku nekk même boodul jullit bañ injustice ak ak yelleefu doomu aadama di protéger ndaw di protéger jigéen li xew nii ca Palestine kenn waruloo woon a jiitu ci nekk ci kanam ngir fexe mu dakk ngir def waxtaan wi ñu dalal ci koo xam ne yàgg na cee waxtaan yàgg cee amal gëstoo muy Oustaz Saïd Diallo Oustaz Saïd jàlloo lañu fas yéene àndal ci waxtaan wi euh, ñu bàyyi ko mu nuyook ñi seetaan aaxiru zamaan yaa Oustaz alhamdulilahi rabbil alamin summa salaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ustaas maxtaar gannaaw bi ñu la di la wàcce sa wàccuwaay di rafetlu ni nga lay taayalee jotaay bi mu doon lu am solo loo xam ne euh, dina tax ki nga xam ne mi ngi seetaan émission bi xam nan la koy déggee waajal ab ndab ngir mën a duy ngir bu fi jógee itam fexe duyal keneen ndax euh, doomu aadama bi bu xamee te ràññewul rek xam-xamam boobu mënu koo jëriñ di jaajëfal techniciens yi nga xam ne ñoo ñu dalal ak waa kër gi yëpp Oustaz Matar ngi lay nuyu beneen yoon di jaajëf ci teewaay bi nga xam ne boole nga ñu ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi. jërëjëf Oustaz Saïd Diallo bu ñu la doon laaj euh, historique gu conflit bi am diggante euh, Israël ak Palestine lan nga ñu ciy wax. Euh, oustaz dañ ci cuqat yenn ci ay dat yoo xam ne taarix mënu koo fàtte ndox bu fekkee dañu bëgg a jël fi mu tàmbalee ba ba mu yegg si fii nii te duñu ci tëb dara oustaz ay émission émission lan koy lañ koy def euh, ci sa njàngale ak njàngalin woo xam ne dafa am solo tax na orientation yi daal di dikk ñu mun koo waajal nin ko wan a waajalee booy wax ci waa banu Israël da ngay xam ne ñu dëgër bopp lañu jamonoy Muusa jamonoy Isa jamonoy jamonoy bi ñu ko dee jëlee ci anbiya yi nga xam ne yàlla yónni woon leen leen ñii ñu rey leen ñii ñu génnee leen ñii ñu jéem leen faat du ñu fi jóge waaye dañuy tàmbalee rek ci ki nga xam ne mooy Theodor Herzl nga xam ne moom mooy théoriser euh, li nga xamante ni bii moom mooy dëkk boo xam ne yàlla daf leen ko diggoon ci kan mooy yontu yàlla euh, Moussa li ñu gëm ne ñoom ñooy Shaabullahil Muxtaar ñoom ñooy peuple élu bi te sunu boroom xamal ñu ne Moussa musul doon yahud musul doon nasaraani waaye dafa jéngoon jëm ci sunu borom walis bokkaalekatu yàlla yi nga xam ne dañuy wax ne yàlla yàlla la beneen keneen yàlla la ak yu ni demee mi ngi koy théoriser ci 1897 1897 ci la ko théoriser ne war nañu fexe ba am foo xam ne fa la ñuy yóbbu lu des ci juif yi gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci fépp foo xam ne nekk nañ fa proposé nañ leen ay dëkk yu bare bare bare bare ñu daldi di lànk mu ne nag dina fexe ba liggéey comme li ñu fàtt ci ñoom dafay bari ni ñu tasaarawo dafa bari nan lay fexe ba dajalewaat leen góor ñi jigéen bu ñu gis muy rakk muy yaay muy tànt na jonjoo ak moom ngir doom yi gën a bari ngir lan ñu mën a amaat ab population boo xam ne ëllëg mun nañ ko jël mu doon ngànnaay jëmale ko ci ñi nga xamante ni bi moom la seen xel nekk ne foofay lañ jëm Oustaz Matar noonu la ñu tàmbalee ci 1917 ki nga xam ne mooy Belfort nekkoon premier ministre Grande-Bretagne yëkkatee kàddu gi ne dafa jot nag ngir waa Palestine ñu utal leen fa ñu jëm buñ utalee fa ñu jëm ñu dëkk ak ñooñu foofu ngir ñu mën a am foo xam ne ëllëg ku leen bëgg seeti fekk leen fa ndax dañuy am ay pàcc gauche pàcc droite pàcc euh, ca kaw ñi ci suuf si lañ doon waxtaan roi Fahd dana leen xalaat leen fu leen neex waaye fii nga xam ne moom ngeen di def ishaara ngeen di junju muy ci bakkanu wala ci ci ci ci ci ci ni nga koy waxee ci jumbaxu réewu arab yi bu leen ko xalaat mooy leen de bu leen xalaat loolu bi ñuy waxtaanee ba tënk Oustaz Matar dañ leen wax ne bu leen neexee ñu yóbbu leen Kenya su ngeen demee Kenya ngeen am fa ab réew lépp loo xam ne ay doomi aadama soxla nañ ko fa ci ay dëkkuwaay ci ay barab yoo xam ne dañ fay faju yooyee yépp di ko fa mën a am ñu ne daal loolu bëgguñu ko ñun ñi nga xam ne ñu ñu waa waa Grande-Bretagne ak sunu reen bi nga xam ne moo ñu jiite dinañ leen jàppale ngir ngeen amal lii nga xam ne moom mooy réewu Israël fii nga xamante ne bii moom mooy ca fii ñu nekk nii nii nii ci réewu Palestine te oustaz Palestine xam nga ne île du Sinaï bi nekk ci Égypte tey ñu yor ko ci seen ay euh, pétrole ne fa Palestine la bokk moomuñu ko dañ ko jël boo demee plateau de gola mooy Liban Lubnaan muy Libye boo demee siri dëkk yooyu yépp ñi ngi bokkoon ci Palestine gannaaw bi ñu ci génnee Irak ak Iran waaye loolee lépp dafa nekkoon mamlaka boo xam ne Seydina Ibrahima bi mu ñëwee looloo nekkoon Palestine Moussa bi mu ñëwee loolu moo nekkoon Palestine moom la ñuy wax la grande Palestine. nga xam ne suuf su yaatu woon. suuf su yaatu. Palestine Ardul Muqaddas. Hmm. yonent yi nga xam ne juddu nañ fa ñu bari dañuy yaakaar ne biir Jérusalem la wala Beytil Maqdis la wala feneen waaye ci euh, bilaat yooyu la leen sunu borom subhaanahu wa taala yóbbu woon. Oustaz mu doon mbir boo xam ne ñu ngi ciy liggéey di ci xalaat. comme ñi ngi sëy seen biir nit ñi di gën a bëri ñuy woote nit fu mu mën a nekk ci àdduna bi bu bekkee nekk ab juif am na ay koppar yu ñu lay jox jox la ay liggéey ca fa nga dëkk yaa xam Russie nga nekk yaa xam Pologne nga nekk yaa xam Grèce nga nekk dinañ la booleek ay entrepreneur yoo xam ne dinañ la wutal liggéey nga commencé denc ci ñàkk te loolu bu amee rek da ngay woo ñeneen ñoo xam ne dañu nekkoon ci jeneen diine woo leen ñëw leen ngeen nekk ab juif su boobaa ñun ñooy ñi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy nekk ñuy jiite li nga xam ne mooy àdduna bi gannaaw deuxième guerre mondiale bi nga xamante ni bii ñi ngi waxtaanee nan la ñuy def ba àdduna bi ne ci jàmm ñi nga xam ne ñooy Angleterre préparé nañu seen coup boo xam ne gannaaw ci 1916 ci lañu waxoon nan la ñuy séddoowee jaziratul alam euh, arabiya bi Angleterre ñi ngi ko joxoon foofee nga xam ne mooy Palestine ci seen dëxli boo xam ne def nañ ko ne dinañ leen utal suuf si ngeen dëkk te Palestine lay doon si la ñu génne woon en 1925 génne ay milliards yu bari wax leen ne dem leen ngeen uti ay suuf foofu ngeen koy loué ngeen wax ne dangeen di ñëw ngir mën a lan bay ñu leen di loué ay suuf léeg-léeg ñu jaay leen ay lopin de terre mooy ay dogit as as tool nga xam ne ay du sax un hectare noonee lañu continuer di liggéey bi nga xamante ne bi deuxième guerre mondiale bi jeex na lan la ñu njëkk a def mooy dañ ne ñii nga xam ne jot nañu am ay suuf fële toll ci ay 17 pour cent ca Palestine dañu bëgg ñu yokk si la defee ay campagne médiatique ak ay propagande ak ay lan proposition boo xam ne dafa jëm ci wàllu nafaqa ci wàllu xaalis moom ay junni junni nit yu jóge Russie ñi jóge Pologne ñi jóge Grèce foofee yépp ñu dugal leen ci ay bateau ñu war a ñëw fii nga xamante ni bii mooy Palestine bi loolu amee armée Angleterre dañ leen mujjee delloo gannaaw bi mu amee Balfour def daal di def benn pression bu rëy ci Nations Unies ne leen lu tax ngeen delloo ñi nga xam ne ñi ngi dëkk yeneen dëkk bëgg soppi dëkkuwaay ngir lan ne dañu gëm ne ñoom ñooy kuréel gi nga xam ne yàlla moom la gëm moom la bëgg moom la teg ci kaw ñépp ñooñee dañuy dem nekk ay juif nekk ay citoyen israélien daal di def ay menaces ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy waa Angleterre ñu commencé dellu gannaaw ki nga xamante ni bii mooy David ben nekkoon nationalité juif amoon influence wu ngand ngand ngand la wax ne dinañu taxawal li nga xam ne mooy état Israël bi si lay liggéey ñu jokkoo ak États-Unis waxtaan ci ak ñi nga xamante ni bii ñooy Angleterre bés bi nga xam ne mooy le 14 mai si la Angleterre wàccee seen drapeau ñii nga xam ne mooy waa Israël daal di yëkkati waa Palestine yëpp bi ñu yeewoo gis drapeau israélien bi di flotter ñu gis ñi nga xam ne mooy waa Angleterre di génnee seen arme yi di toxu ni dañuy génn foofee israéliens yi daal di attaqué li nga xamante ni bii mooy Palestine poste yi gën a màgg yëpp ñu fexe dem fa yóbbu fa ay militaire bi ñu xamee ne militaires yi buñ ko yóbboo du baax ñu delluwaat gannaaw daldi di wootewaat waa Soudan waa keña waa Djibouti noonee la ñu defee ci Afrique noire ñu jël fa ay doomi aadama noonee lañu demee ci États-Unis jël fa ay doomu aadama dem fële nga xamante ni bii mooy Europe itam jëlaat fa ay doomu aadama daal di leen yóbbu fa nga xamante ni bii mooy Palestine si lañu ñu commencé def li nga xam ne mooy an naxda palestiniens yi ne ñoom mënuñu d'accord yi duñu seetaan ay doxandeem ñëw fekk leen foo xam ne seen maamaati maam ñoo fa nekkoon ñu ñëw ñu fat leen ndekete ñoom am nañu beneen yéene bu dul ñëw di bay waaja ñoom dañu ñoon pour nangu sunu réew noonu la ñu commencé def li nga xam ne moom mooy xeex bu metti ba ndaxte catastrophe mënul gën a rëy jour boobu nga xam ne mooy la 14 mai en 47 adduna bi yëpp di gis loolu Nations Unies waxuñu OTAN waxuñu amul kenn koo xam ne wax na lu dul yenn ci ay jullit ñoom ñoo génn lu mel ni siri ak Égypte daal song ñi nga xam ne mooy Israël biñ leen songee waa États-Unis jaar ci suuf ngemb leen Angleterre ngemb leen metti lool bi gerbe ba nag ña nga xam ne mooy araab yi dañu mujjee dellu gannaaw en 1949 Égypte daal di songaat daal di jël fa nga xam ne moom mooy île du Sinaï waa Cisjordanie ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Lubnaan yi Libanais yi jël ko ak plateau de gola daal di waraat ñi nga xam ne moom mooy waa Palestine wër leen ndomb bi mu demee noonu Palestine dafa euh, waa Israël dañu dox ba mu yàgg ñu delluwaat attaqué leen ci lan en 1956 bi ñu leen attaque loolee nga xam ne waa Syrie jëloon nañ ko ak waa Égypte yëpp dañ ko nanguwaat ci seen ay loxo noonee muy bande de Gaza île du Sinaï boobu ak euh, plateau de Golan bi nga xam ne ay junni junni palestiniens ñi nga fa réfugié ñu leen di sànni ay bomb du ñu am hôpital du ñu mën a faju aide humanitaire bi mooy ndimbal yi jóge ci yeneen réew yi ñoom dañuy bañ sax mu dugg fa loolu tax na 1959 ci la ki nga xam ne mooy Yasser Arafat daal di nekk ab ndaw boo xam ne nee na noggutu bi dafa des li muy def mooy dafay créer ab kuréel goo xam ne da ciy xeex ak ak yelleefu waa Palestine si la nekkee noonu góor góorlu ba am li nga xam ne mooy OLP organisation pour la libération de la Palestine bi mu ko defee wëlbatiku daal di song ñi nga xam ne mooy Israël biñ leen songee nag ñu dóor leen dóor yu metti rey ci ñoom ay junni junni junni doomu aadama mbir mi jaxasoo benn xeetu jaxasoo boo xam ne waa Kowet dugg nañ ci kii di Yasser Arafat dem ba Kowet ay bés mu def ko fa daal di dellu siwaat noonee la organisation Al Fatah di soso bi mu demee noonu am ay syriens yoo xam ne ñëw nañu foofu ku ci mel ni Izzuddin al-Qassam moom mu ne man dëkkuma Palestine waaye dama gëm ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna alsolata wa yutuuna zakat wa yutiuuna allah wa rasulahu fa ulaayika sayrahamuhum allah muy dama gëm ne ay julit ñu góor ak julit jigéen ay alliés lañu comme ni nga ko waxee jenn jëmm lañu boo laalee bopp bi tànk bi yëg ko boo laalee bët yi biir bi yëg ko ndax du lekk noonee la ñëwee foofu di xalaat di tëju di waxtaan di xalaat di tëju ba tàmbali defar ay bomb mooy ay missile bi mu demee ba perfectionné ko si lañuy tuddee missile yooyu alqassam moo tax seen jaysh yi ak seen katiba yi ñu ngi ko tuddee kooku nga xam ne moom moo créé inventé bomb yooyu nga xam ne dafay jógee bande de Gaza dem ba Tel Aviv bañ ko fa njëkkee door ñoom ñëpp dañoo jaaxle dañu ne nit ñi nan lañu war a mën a jóge fii nga xam ne mooy bande de Gaza romb Palestine yëpp ñëw ba fi nga xam ne mooy Tel Aviv cat cat cat li nga xam ne daanaka mooy frontière ak euh, Égypte loolu doy na waar si lañ leen songe xeexak ñoom xeex yu metti waaye waa OLP ànd ci waa Gaza ànd ci waa waa waa ñi koy wax ni waa Hamas. ànd ci guerre bi doon guerre boo xam ne dañu delluwaat gannaaw. 1964 ñi nga xam ne mooy OLP dañu daje fële ca Jérusalem ngir waxtaanee nan la ñuy fexee ba sunu suuf yi ñu nangu woon ci 1947 ba ñuy wax ne dañuy séddalee fii nga xam ne mooy Palestine te mosuñu ci ànd te situation bi gën na doy waar dañuy fexe ba delluwaat ci. tër yooyu ñu tëroon loolu ñu amoon ci suuf ñoom ñu dellu fa ñun ñu jël li nga xam ne moom la ñu lool ngir lan bu dul loolu dinañ ñàkkandoo lépp te doole yemut te occidentaux yi dañuy sot ñi nga xamante ni bii mooy États-Unis itam kazalika dañ leen sot noone lañu ñu regroupé woo ca fële nga xam ne mooy plateau de Gola bañ fa demee coow li bari na xeex nañ fa ba ñi nga xam ne ñoo àndoon waa OLP ñu rey ci lu toll ni juróomi junni doomi aadama kon ay junni yàgg naa faatu noonee la waa Gaza yi àndoon nag waa Hamas ne lii ñii mënuñu ko lijjanti faw ñu waxtaan ak ñoom li am ba des mooy ñii dañ ñuy jaay doole ñun am nañu doole ndax lan ñun dañu gëm ne bu ñu deewee ci lii sunu suuf la ñuy défendre sunu alal la ñuy défendre te yonent bi deen su boobaa shahid lañu waaye ñoom dañuy xeex ngir bañ a dee ngir intérêt àdduna moo leen yëkkati ñun dañuy fexe ba ñu dugal suñu loxo ci xeex bi carrément nekk ñoo xamante ni bi dañuy góor góorlu beneen bi 1967 si la ñi nga xam ne mooy araab yi dajaloowaat ñoom ñëpp songaat waa Israël comme ni ñu ko waxee saa su nekk Angleterre du ci génnee loxoom France du ci génnee loxoom jàppaleeg ñoom ay drone yoo xam ne missile bu jógee bande de Gaza wala mu jógee Jérusalem du mën a yegg Tel Aviv mu doon mbir boo xam ne Oustaz Matar gis nga mbir yi noonu lay tegalante di tegalante ba 1967 boobu la ñuy wax nag ñetteelu tampaloo boo xam ne tuddee nañ ko tampaloo mooy la guerre des six jours nga xam ne arab yi dañu daje ñoom ñëpp bi ñu dajee Israël ak ay nijaayam ak i bàjjanam dóor leen dóor yu metti yoo xam ne wallahi soo koy nettali sax sa yaram day daw faat ay faat yu ñaaw yoo xam ne ay armes chimiques lépp daal nañ ko sànni ci diggante Égypte siri Liban bii nga xam ne mooy biir Palestine oustaz boobu bi ñu bi ñu dóoree naar yi dóor yu metti yooyu dañu jël Jérusalem Est jël ko ne ko tungaañ bande de Gaza ñu daal di koy jël île du Sinaï ñu daal di koy jël plateau de gola ñu daal di koy jël daanaka Palestine ab xam nga tàndarma li na ci biir nu mu tudduti xoox boobu xooxu tàndarma kese la ñu dese waaye Israël jël na lépp loo xamante ni bii moo nekkoon lu am njëriñ bu demee noonu nag waa Syrie il faut ñu góor góorgóorluwaat jugaat taxaw le 6 octobre 1973 jàmbarloowaat ak waa Palestine waa waa Israël yi jàmbarloo bi niñ ko defee mooy stratégie la ñu changé moo ne duñu jàmbarloo ak ñoom waaye dañu di wër ndomb rek fu ñu toog lancé ay missile déplacé wu ay kilomètres et kilomètres balaa ñoom ñuy dellu si waat di leen lancé waat di fayu ñoom ñu dépassé déplacé wu ndaxte waa Israël dañu yor ay missile yoo xam ne dafay delloo missile fa mu ko jëlee woon retour de missile dañ ko am bu missile bi jógee rek bu ko radar yi gisul su yegsee ñoom am nañu stratégie boo xam ne missile boobu dafay wëlbatikuwaat delluwaat foofee nga xam ne foofu la jóge woon mu doon loo xam ne lu méttee méttee métti la daloon ci waa Syrie siri yi guerre boobu la ñuy wax geeru Kippour ci la ñu nekkoon waaye delluwuñ ci gannaaw boobee nga xam ne pare nañu nag waa Nations Unies dañu jël ay daan teg ko ci Israël daan yoo xam ne crime la contre l'humanité crime de guerre yooyu yëpp dañ ko teg ci seen kaw waaye Israël nekk koo xam ne dafa am bàjjan am nijaay continuer di wéyal li nga xam ne mooy mbir yi en 1978 nag si la accord bu rëy boobu nga xam ne amoon na entre Sadat ak ki nga xamante ni bii moom mooy le premier ministre bi nga xam ne mooy Isaac si la ñu ñoom ñaar stratégie boo xam ne waa OLP dañuy bàyyi li nga xam ne moom mooy sànni ay grenade sànni ay xeer di teg ay bomb waa ñi nga xam ne Israël bàyyi réew euh, suuf yi ñu doon jël kër yi nga xam ne dañ koy tabax ci 24 heures ñëw daaneel kër goo xam ne dañ ko tabax ci juróom-benni weer tabax fa kër goo xam ne oustaz ay làcc la ñuy teg teg fondement teg mu nekk ab étage bu gaaw boo xam ne du mët 48 heures. Hmm. ñoom nag ñu ne dinañ delluwaat gannaaw waaye accord boobu biñ ko signé fële sa Washington en 79 quand David boobu nga xam ne histoire du ko fàtte mukk ministre bi nga xam ne moo jiite woon wàllu Israël Ariel Sharon mbir mi da ko metti moo tax biñ ko siñee ñetti at dafa génn ne moom du ànd ci li nga xam ne moom la premier ministre daal di yaxal ndax moom li mu gëm mooy Ariel Sharon moomu ñii daanaka golo ñoo leen gën li aw li war ba li am ba des mooy dañ leen war a faat rey leen génnee leen fi jël li nga xamante ni bii mooy Palestine te duñ ca yem de dañuy yéeg ba ci dex bii di Furaat nekk ci Irak foofu la tàmbalee ba fleuve bi nga xam ne mooy Niil fi mu jeexee nee na loolu la leen suñu borom subhaanahu wa taala dig màkkatal mukaram ma nga ca madinatul munawwar mi ngi ca Égypte ma nga ca Palestine waxi nopp Syrie mi ngi ca Liban ma nga ca noonu ngay continuer maro noonu ngay continuer Soudan noonu ngay continuer noonu ngay continuer dëkk yooyu yëpp dafa bokk seen programme ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko war a jiite. Hmm? wallahi lazim furaat ba niil fu mu jeexee. soo paree nga te loolu buñ ko buñ ko occupé Makka ak Medina ak. lépp da ciy kenn waxatu ko. Maroc lépp da ci dugg Maroc yëpp da ciy dugg. Hmm? loolu càllale googu la ñuy jël nga xam ne ñooy téye àdduna bi. Hmm. ndax boo xoolee Afrique dafa nekk ci diggu àdduna bi màqatal mukaram dafa mel ni jumbaax ba soo yéegee dafa mel ni biir ba soo jëlee biir dem ba ca óom yaram lu ca des kaw ak suuf dara des ca noonee la Ariel Sharon daal di lancé armée bi militaires yi daal di dugg biir Liban mi ngi ko tuddee woon paix de Galilée noonee la songee rey ay doomu aadama yu bari objectif am moo noon waa OLP dootul benn dootul benn doomu aadama dootu ci des Yasser arafaat ak ay mbokkam ñooñee ñépp dañ leen war a faat kon loolee la wax mission boobu mu tuddee ko la paix en Galilée Galilée mooy seen réew boobu nga xam ne moom mooy tàmbalee Furaat ba fii nga xam ne mooy fleuve Nil Yasser Arafat continuer di doxal li nga xam ne mooy accord de paix ba waa Hamas ne ñoom mënuñu comprendre lii gars yi bu ñu leen jekkoo ñu négocier bu fekkee ne teg nañu suñu gàndaay ñoom ñu teg fekk ñoom tekkuñu seen ngam eh, ngemb dañ ko yolomaloon. ñu bett leen ñu bettaat leen. noonu la ñu continuer waaye 1987 nag c'est le premier iltifada bi daal di tàmbali di jël xeer yi di sànni waaw yaa ko jàngi woon wa ma ramayta iz ramayta walakin allaha rama xeer yi dañ koy sànni mu mel ni bomb oustaz da ngay gis ay xale juróomi xale taxaw nit yor char de combat wallahi al azim bu tiiree du tàkk xale yi di sànni xeer yi ñoom ñuy mel ni ay bal la ñuy gis di dellu gannaaw noonu la ñu nekkeek ñoom noonu la ñu nekkeek ñoom ba 1993 si la Yasser Arafat dem fee nga xam ne mooy Oslo daal di signé li nga xam ne moom mooy accord ngir bànn daa Gaza bi ñu jëlaat ko ci ñoom ndax xam nga guerre de six jours yooyu dañu jëloon li ñu jëloon yëpp plateau Gola Sinaï bi fi nga xam ne mooy Jérusalem Est yooyu yëpp dañ ko jëloon ñu ne ñoom nañu fexe ba ñu delloo leen lenn ci ay suuf ngir ñu mën a am fu ñu nokkee mën a continuer di dund dund koo xam ne bu am solo la léegi nag le 13 boobu septembre c'est le Isaac Rabin Isaac Rabin boobu daal di yaxal nag li nga xam ne mooy proposition boobu biñ ko defee ci 93 en 95 lañ ko rey ndax ci deux ans yooyu yëpp gis nañ ne ñi ngi toog di waxtaan ndax Isaac Rabin dafa gëmoon ne mun nañ am ñaari réew kenn ku ne nekk ci sa boor di dund li nga war a dund am sa gouvernement am sa autonomie comme ni nga xamante ni bii moom lañ doon wax en 47 euh, waaye duñu dellu ci li nga xam ne moom la ñuy wax ci 17 1887 euh, duñ ko fa def léegi nag waa Israël mu am ñoo xam ne el dur lañu dañu jàpp Isaac Rabin daal di koy assassiné ci bés boo xam ne dañ ne woon dañuy marche ngir yaxal jàmm ji nga xam ne tàmbali na am ci diggante ñaari peuples yi bés boobu lañ ko faat biñ ko faatee nag ci la lépp tab bi doxee fa nga xamante ni bii moom mooy géej le 4 novembre cent 1995 lañ ko faat à 2000 nag ñi nga xamante ne bii mooy israël yi daal di taxawal seen parti boobu di Likoud Ariel Sharon mi nga xam ne moo defoon jéyee yu ñaaw yooyu moo ko daal di jiite bi mu ñëwee ci élection législative yi daal di jël réew ma bi mu ko jëlee nag soxar gi mu amoon ak bon gi ma amoon ak bëgg raafal li nga xam ne mooy xeetu arab ak jullit yi nekkoon foofu ak ay chrétiens sax yoo xam ne ñu ngi biir Palestine di dund seen diine di jaamu yàlla ci eglise yi fa nekk église de la nativité moom dafa ne day faxas ñoo ñee ñëpp noonee la ko sionis yi ànd ak moom ñu daal di koy jox réew moom mu daal di koy diriger di def yu ñaaw yoo xam ne oustaz kenn mun la ko wax waaye li nga xamante ni bii mooy deux mille vingt 2021 bi mu jotee deux 2001 bi mu jotee si la tas nag ne loolee nga xam ne jëloon nañ ko ñun dañ koy tas li ñuy def mooy la loi du plus fort ñoo ëpp doole dañuy yaxal sunu doole jëmale ko ci li nga xamante ni bii moom mooy waa Israël ak waa Palestine ak képp koo xam ne ànd ak ñoom ca 2002 ba nag si la def benn attaque bu mu tuddee rempart mooy comme nga songoon dellu gannaaw songaat noonee la songaatee dal di faat ay junni junni doomu aadama mm-hmm. waa Nations Unies daal di génnaat ne kat lii nga xam ne Ariel Sharon def na ko lu ñaaw la dafa safaanoo àq ak yelleef doomu aadama rey ni ñaaw na kon crime de guerre lañ ko war a àtte waaye ba tey kenn jëliwu ko xam nañ fu mu nekk mhm. waaye ci 2004 moom Ariel Sharon boobu si la jël ab hélicoptère mu fekk Cheikh Yaasin nga xam ne membre fondateur u Hamas la dafa nekkoon koo xam ne dafa handicapé loxo yi baaxul tànk yi baaxul waaye bu xutbaa ay junni junni doomu aadama génn joxe seen bakkan ngir dañu gëmoon ne dañuy jaat fii sabilillah ñu ne li fekk Cheikh Yaasin mi fi duñu mën a continuer di noot ñi nga xam ne mooy Palestine ak ñi mu àndal nga xamante ni bi moom mooy waa Fatha léegi misil yu mu ko fekkee ci chaise bi nga xam ne mooy puus-puusam da doon julli ji fajar oustaz dañ ko doon for ay morso morso waxuma nit ki de mais li nga xam ne mooy chaise roulante bi da ngay jël rayon fee jël frein fee jël daggit fii noonee lañ ko jëlee noonu lañ ko saamee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal di koy yóbbu loolu mi ngi ko def ci le 22 mars 2004 2004 noonee lañu continuer onze mois après si lañu gis ne Yasser Arafat feebar na feebaru metti si lañ ko évacuer yóbbu ko fii nga xam ne France mooy France lan lañ ci teg mu daal di faatu ñee dañ ko empoisonné ci poison boobu ñuy wax euh, cent 210 moom lañ ko assassiné dañ ko defoon ci ndox bi nga xam ne moom la doon nan ba suñu joon yàlla tey résultat wu autopsie bi ba léegi kenn amu ko ki nga xam ne mooy Mahmoud Abbas biñ ko éliré en 2005 dafa continuer di wéyal li nga xam ne moom mooy xeex bi ci nga xam ne 38 ans yi nga xam ne seen xeex bi am na ko bokkul ak 70 ans yi nga xam ne si la tàmbalee ba suñu joon yàlla tey moom mooy da koy gën a continuer waaye day gën a màbbal réew yi gën a génnee waa Palestine yi seen kër yi defaat du sax ay ay ay tool de mais ay plantation lañ ko tuddee foo xam ne dañ fay implanté wu te boo déggee plantation nga yaakaar ne ay garab la ñuy planté la ji fekk ay kër la ñuy ji ci ay toolu jàmbur noone ki nga xam ne mooy premier ministre Ariel Sharon Ba le 4 janvier si la daanoo li nga xamante ni bi mooy commande ba commande bu yàgg boobu nga xam ne daanaka diire na presque 14 ans oustaz 11 ans 11 ans 11 ans bu dugg ci nekk ci diggante dund ak dee loolu yëpp di wane misaal yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi koy. wan dana ko teg tooñkat. dinañ koy teg ñi nga xamante ni bi ay tooñkat lañu. léegi nag Hamas nag si la ñu jëlee ci 2005 ci lu rey loolu amoon si la ñu góorlu nag ñëw ne waa OLP di ngeen ñu bàyyi ñu doxal comme booba léegi yéen a ngi doxal ñu ne seen gannaaw ba léegi amuñu ndam bàyyi leen ñu ñoom ñu bañ ñu commencé xeex seen biir mu doon lu yéeme ñu rey ci waa OLP lu bari rey ci waa. ñi nga xamante ni bii moom mooy Hamas waaye Hamas daal di jël li nga xam ne moom mooy Gaza ba suñu yoon yàlla tey ñoom ñoo koy dirigé ñoo yor administrative yëpp si Jordanie la waa OLP daal di jël di ko doxal. oustaz noonee la ñuy continuer ba ci 2007 le 29 mars si la ñu relancer li nga xam ne moom mooy sommet Riyad ba ngir waxtaan nan la ñuy fexee ba Israël delluwaat gannaaw. mais jurul dara mille 2008 le cinq décembre noonee la nga xam ne la waa Israël jógaat songaat ñi nga xam ne moom mooy waa Palestine boobu junni doomi aadama ak ñeenti téeméer faatu nañ ci guerre boo xam ne ay bés kese la ci booba fukki nit ak ñett ñoo dee ci waa Israël 2011 ci tënk ci lañu ñu déployé ay missiles yoo xam ne missile de fer lañ ko tuddee lépp luy weñ du leen romb di dugg biir Tel Aviv lépp luy weñ du leen romb di dugg biir fa nga xamante ni bii mooy Jérusalem noone lañ ko defee waaye waa Hamas ne ci seen ay pexe ne si ay pexe ba fu ñu toll seen sirènes yi di jóg ay missile di fa dugg xamuñu ne sunu borom subhaanahu moom mooy jàppale ñi nga xamante ni bii mooy ay junudam ay soldaaram 2012 hmm. Israël daal di lancé waat benn opération jëmale ko ci Gaza le 14 novembre 2012 commandant bi nga xam ne moom mooy Assad Al Jabiri nga xam moo nekkoon général de guerre bu mag ci lañ ko faatee faat bu ñaaw comme noonu rek dañ lay ciblé ciblé la ba nga teg ci benn kër wala ci benn oto ñu lancé la bomb boo xam ne bu fekkoon téeméer ni da leen di faat noo leen di reyee ci guerre boobu nag cent soixante 170 palestiniens daal dañ di faatu ci saa si biñ ko faatee dëkkuwaay yi fa nekkoon doomu aadama yi dañoo daal di faatu oustaz 2014 si la jëlee ñetti xale kidnappé leen rey leen yu ñaaw daldi koy teg ci yenn rajo yi ak yenn tele yi di wax ne waa xamaas ñoom ñoo def lii ngir lan tuumaal leen ba waa OLP commencé di gëm loolu mu indiwaat beneen jafe-jafe ci diggante biir jullit ñi noon bi moo lay jox xibaar ci sab soppe ci sab xarit ci sab mbokk jullit nga koy gëm mooy ne foofu pas-pas bi nekk na pas-pas boo xam ne bu xaw a doy waar la oustaz en 2018 am na benn rassemblement boo xam ne waa ñoo ko def taxaw ci booru jumaa ji yëkkati seen loxo di wone sunu réew ñoo ko moom sunu dëkk ñoo ko moom mun ngeen ñu fàdde waaye sunu xol bii al quds fi qulubina te du dañ mukk nan lañ fa fekkee ustaas ay lacrymogène ay fetal ay bal ay ay ay ay missile lañ leen dóor door yoo xam ne ustaas li fa faat ci ay doomi aadama kenn xamul nu mu toll adduna yëpp di seetaan jamono boobu la ñuy jël ki nga xam ne Mohamed Dourra mi ngi toogoon ak yaayam lakku ci benn benn genre euh, fi ñuy def compteur ndox yi xam nga dañ koy tabax ci biti kër yi mu dem làqatu foofu ak doom ja fa la ko soldaaru israélien fekk bàyyi yaay ji de doom ji mu téye mu daal di koy rose ay bal laa ilaha illallah image yooyu waroon na àdduna le vingt et un en mille vingt vingt et nag gis ngeen affrontement bi amoon ci euh, jullit ñi dañuy dugg ci weeru koor dem di nawafil ñu ne leen déedéet du ngeen fa dugg ñuy jàppanteeg ñoom ñuy dóor ay jigéen ay meer ay màgget ñu ci rey di damm ay tànk ñoo xam ne seen ndigg yi ñoo damm seen bassin yi ñoo damm ñoo xam ne dañ leen dóor ba seen loxo yi dañ ci seen yaram yi loolee yëpp ci mille vingt 2021 la deux mille vingt deux Israël daal di bombarde bombardement boo xam ne la cinq août la ko def bombardement massif la lépp luy dëkkuwaay boo xam ne si la ndox di jóge courant di fa jóge wala hôpital ñu daal di koy bombarde dëkk ba nekk ci crise amuloo courant amuloo ndox amuloo foo fajoo ñoom yàgg nañ def loolu su boobaa noonee la ñu nekkee ba mille 2023 bii nga xam ne lu jiitu lii di am ci janvier rey nañ fa ay junni doomi aadama àdduna yëpp di seetaan waa Hamas nag ne nañ defaat suñuy mënin nan la ñu fexe ba def benn attaque boo xam ne dañ koy def ci barab yu wute te dinañ leen won ne li ngeen di won àdduna bi ne da ngeen am kàttan ba yoo bu jógewoon fële ca Israël yëg ngeen ko bu yëgee ci turki yëg ngeen ko mun ngeen fekk doomu aadama ba ci biir néegam ngeen foto ko am ngeen ay drone yoo xam ne mun ngeen ko yóbbu fu leen neex ba benn weñ mënul dal ci seen am réew waa Hamas won nañ leen ne lool ngeen wax dara du ci dëgg ay milliards lañu jël def ko ci seen barrière yooyu def ci courant seen miir yi nga xam ne tabax nañ ko ak ci arrière Sharon def ci ay milliards loolee lépp keroog dafa wane ne du dara yàlla moo mën a aar doomu aadama bi waaye du ay pexe moo mën a aar doomu aadama bi loolee moom la am ñu deg song goog nga xam ne moom lañ def le 7 octobre boobu adduna bi yëpp di yuuxu naan lu ñu def ñaaw na te bi may wax ba suñu joonu yàlla tey te damaa tënk amul kenn ku mës a yuuxu ne li ngeen def ñaaw na mhm. Palestine bu ñu tiiree ñu ne ay terroriste mhm. Israël bu bombardé ñu ne dafa fay représailles mu doon nafiq goo xam ne ñi ngi koy gis ci journaux occidentaux yi ñi ngi koy gis ci Nations Unies yoo xam ne daaw rek daaw mhm. en 2022 Israël 17 résolution des Nations Unies condamné na ko ci acte yoo xam ne ñi ngi koy def faalewul kenn Russie mi nga xam ne mi ngi xeex xam nga ñaata résolution lañ jëmale ci moom juróom-ñaar kese mhm. te ñoom ñi ngi xeex waa Ukraine xeex bu metti waaye juróom-ñaar gis nga guerre bi ni mu mel ni mu ñaawee ni mu mettee waaye Israël def na lu ëpp loolu fukki yoon ak juróom-ñaar àdduna bi yëpp di seetaan oustaz ci tënk macha allah ah, ci mëmbësal wax rek ne taarix bi dafa am solo mhm. ngir ñi nga xam ne gëmuñu ne mbir mi mbiru diine la dañuy nax seen bopp effectivement ndax pol polonais mhm. bu ñëwee ne israélien la kon ñaata ñaata nationalité la am kon mbir mi mbiru diine la comme ñoom képp koo xam ne nekk nga juif rek nationalité boo mën a am yow waa Israël nga da am double nationalité kon mbir mi du mbiru ab peuple buy xeex ak ak peuple waaye ñoo xam ne dañu gëm seen diine gëm ne ñoom la yàlla bëgg ñoom ñooy ñi yàlla choisir ba yonent yi ëpp ñoom la ko defoon te oustaz bul fàttali booy jàng banu xaynuqa ak banu nadir ca madinatul a lan la ma fi yóbbu woon li leen fi yóbbu woon dañu jàngoon seen téere yi ne yonent bi alayhi salaatu foofu lay juddoo ñu dem fa dëkk fa am fa ay kër nan waa naan arab yi bés bu yonent bi génnee ci ñun di ngeen xam ne lépp dëgg la yéen a ñuy sonal yéen a ngi ñuy bundu xatal waaye sunu yonent bi nga xam ne sunu téere yi mun ñu ko doon wax fii lay juddoo bës bu juddoo ci ñun ndax ñun la yàlla bëgg di ngeen xam bi leen yàlla njuuyee génnee ko ci araab yi ñu commencé war boobaa banu xaynuxaa nan lañ doon def pour assassiner yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak yeneen ñi ca xew yëpp mhm. ba rasulullah attaqué leen géer génne leen fa nga xam ne mooy madinatul munawara kon ñoom yàgg nañu wër mhm. ci kaw suuf mhm. yàgg nañu nekk ay mbuqat ishab anta wa rabbuka fa qaatila boobu nga ñu waxoon Muusa inna haunaayi qaaiduun loolu dafay wane na ñoom musuñu am dara musuñu gëm dara leen lañu gëm mooy seen ay bakkan yàq suuf nekk ay sionisme lépp koo xam ne gëm nga leneen lu wuute ak ñoom li nga gëm ñu daal di lay weddi ñoom ñoo tuumaaloon Mariam ne dafa jokkoo ak góor goo xamante ne bii yàlla xam day na ñu ngi jéggalu ci kàddu gi nag ñu koy waxee sax waaye faw ñu won àdduna bi ñii ñooy tàppet yi ñii ñooy mbuqat yi ñii ñooy terroriser doomu aadama yi di wax ne lépp lu ñu bëgg ci àdduna bi moom mooy am waaye ci benn guddi wan nañ leen yoru leen dara hmm. inna al quwata lillahi jamian kattan yàlla moo ko yor te moo ko ndar képp. macha allah macha allah Oustaz am na solo xam naa heure bi ñu doon mujj sax di jagleel émission axiru zaman bi dépassé nañ ko tuuti waaye euh, dama ne bu demoon ba une heure trente wala ba heure heures sax euh, nañ ko fa yóbbu ndax dafay am solo émission bi nekk archive ci ñi nga xam ne ñoo bëgg a xam coow li fi mu dooree année par année date par dat xeex par xeex ba mbir yi toll fi mu toll. Euh, li ci euh, Oustaz Saïd indi riche na tabaarakallah te bari na tey dana nekk delluwaayu ci ku bëgg a gëstu xam coow li fan la dooree ba fi mu yegsi defe naa ko tàmbalee ci 1800 ba yegsi ci 2022 23 loolu diggante bi mbir mi yàgg na te li may résumer rek ci li mu indi mooy ñu bàyyi xel ne Israël ñoo fekk ci Palestine misaal naa ko keroog ca émission plateau spécial ba ca Seneweb mi ngi mel ne Sénégal xëy rek am benn xeet bu nekk ci àdduna bi ñu dañ leen a bëgg a utal fu ñu dëkk ñu xool xool fu ñu xalaat ñu ne leen du fii ñu ne leen yóbbu senegal ñu ñëw Sénégal ne dañuy jël fi nga xam ne mooy Rosso Mauritanie fa la ñuy dëkk di fa yéene nag di avancer di ñëw ba ñëw nangu Ross Béthio nangu euh, fi nga xam ne moom mooy Ndar ñëw nangu Louga nangu Thiès bay jege si nag léegi ndakaaru wala ba yegg si tëngéej nangu ko léegi nag mu des biir ndakaar loolu la Israël def li nga xam ne moom mooy Palestine ñoom ñoo fekk si aw nit di xeex ak ñoom di nangu seen suuf di rey seen njaboot di jël seen alal di gën a avancé ndax dañoo gëm ne ca cosaan yu yàgg yee ñoom ñoo waroon a moom foofu ñeneen dëkkee ko te loolu amul léegi nag ki nga xam ne moo fekk si ña dëkk ca dëkk ci jàmm mu ñëw di leen bundu xataal te ñoom dañu leen fatoon rek ñu ñëw fa ñu ne leen nekk leen fii ñu jëw ñoom di yokk lañ leen joxoon ci façon boo xam ne ni du ñoom kese mais bu doon ñoom kese waa Israël jeex nañu ci kaw suuf amatuñu waa Palestine réglé nañ bu yàgg seen i mbir mais ñi leen ngemm nekk seen ginnaaw te yàgg leen a ngemm ba léegi ñu wéy di leen ngemm réew mu ci mel ni Amérique ak yeneen réew yu mel ni moom ñoo nekk ci seen ginnaaw di leen dooleel ba toll fii mu léegi nag mbir mi ñu dem ba tourner benn mouvement boo xam ne dafa juddoo ci guerre ndax tey ñu nekk ci Hamas seeni waajur ñoom ñoo nekkoon ca ya ko jiitu woon ci ay mouvement yi nga xam ne dañoo yàgg a jëmmarloo euh, waa Palestine tey ñoo ñu nekk ci mouvement yooyu radicalisé wu ci seen kaw di défendre seen bopp di xeex ak aw nit ñu ñëw di rey seeni mbokk di nangu seen alal tey mouvement boobu la ñuy tuddee mouvement terroriste tubaab yi bandi yi lëkkaloog Palestine ñooy tuddee mouvement boobu terroriste te léegi Israël ba mu yàggee jëf li muy jëf li mu rey ay millions yi millions yi millions yi doomu aadama la kenn mosulee na tuddee terroriste waaye mouvement bi bu riposté ci seen kaw lu mel ni lii mujj xew ñu rey ci ñoom la ñu rey ci ñoom àdduna bépp jóg ne waaw Palestine dañoo war a fayu dañuy fayu waaw léegi ñoom lañ doon def ci ginnaaw nu ñu ko tuddee nombre bu toll ne bii waa Hamas rey ci ñoom bu yàggul li ko jiitu dara ci ay weer ci ginnaaw mo nombre bu ko ëpp rey nañ ko ci waa Palestine mais monde bi yëpp ne silence seen yu mel ne CNN boo demee ci États-Unis duñ la ci jox dara lu dul ay nar rek la ñuy jël tegal la ko France vingt 24 sax dañ lay tromper ci information yi ñu lay jox ndax muy France muy États-Unis wane nañ carrément ne ñoom Palestine jàppale wuñ leen dañoo war a dal ci seen kaw Israël la ñuy jàppale. te boo comprendre lan moo xew li nekk ci ginnaaw mbir mi mooy juif yi am nañu doole ju am joo xam ne am nañu alal. réew mu mel ne Israël avancé na ci wàllu renseignement ba nga xam ne buur président yi nekk ci àdduna bi ay suq lañ yoo xam ne soxla nañu Israël di leen jàppale ci wàllu renseignement contre seeni noon ak yu ni mel ba tax na ñoom ñëpp ñenn ñi nga xam ne ñoo gënoon a affiché wu sax ci jàppale euh, réew mii di Palestine ñi ngi tàmbali léegi di rocceeku ndànk-ndànk ndax seeni intérêt personnel ba ci réewu euh, arab yi. arab saoudia waaw réewu arab yi nga xam ne waaw. waxtaan na ak ñoom reconnaître na leen. beneen bi da leen di envoyé ambassadeur te nee na pare na pour jàppale leen fii nga xam ne mooy al Quds nekk seen capital li nga xamante ni bii moom la Joe Biden Joe Biden euh, sañul def waaye dof ba fa jógee léegi moom def ba fa jógee ca <laughs> États-Unis defoon na ko mhm. ndeysaan mu doon loolu day waar te waa jasira ngi nii waa jasira dañ leen di dàq seen mi euh, reporter yi seen caméraman dañ leen di dàq bee passé dañu bombardé seen oto yi waaye palestiniens yi ñoom ñooy filmé ci seen téléphone di leen ko envoyé ñu koy jàllale ñu koy xam nga loolu loolu doy waar la soo demee ba am réewum jullit mën a lëkkaloo ak am réewum yéefar contre réewum jullit ne ñoom Arabie Saoudite moom émission spéciale rek moo ma ci doy moo tax sax duma ci bëgg a xuus ndax caay-caay gi nga xam ne tey mi ngi nekk di fa law ñu koy lawal milliards jullit ñi ñuy foyee di ko jox footballeur yi di ko jox fecckat yi loolu yëpp bis danañ ci jagle danañ ko jagleel émission Axiru Zaman spécial waaye dafay dugganteeg xew-xew bii xew ci Palestine ndax tey bu euh, juif yi mënee am doole ji nu am wax dëgg fa yàlla réewu arab yi euh, manko gi ñu waroon a manko bu ñu ko manko woon kon mbir mii nga xam ne moo xew du xew rawatina Arabie Saoudi nga xam ne réew moo mën a tudd ci réewu arab yi mën nga ne moomeelam la yor pétrole am la yor ay milliards am la yor mais Arabie Saoudi la ñu yor ci alal nekkul rek mooy seen alal mais man mii Oustaz Saïd sëñ moor mi keneen ku dul noonu su bëggee aji màkk fa lay dem bu bëggee umra fa lay dem te booy dem alal joo liggéey nga fay yóbbu joo xam ne boo yóbboo téeméer juróom-ñeent fukk yi fa nga koy bàyyi mu delluwaat beneen pourcentage ci juróom-ñeent fukki yi loo xam ne ca compte pour buur ya la jëm yii ñu ngi koy jël di ko foye ji ca biti di ko may tubaab yi yii ñu ngi ko jël di ko jox léegi footballeur yi fecckat yi di seetaan seen mbokk yële ca Gaza nga xam ne problème mu coton sax dañ koy am buñ gaañee aw nit bu ñu mën a fajee gaañ-gaañ yooyu xale yu ndaw ngay gis ñu gaañ leen deret ji di tuuru mais hôpital yi amuñu sax ay jumtukaay yoo xam ne yu ñu leen mën a fajee la lii nag euh, mbokk yi euh, kuy jullit wala sax nga am yëg-yëg bañ injustice war na la naqari war nga dénoncer tooñeel gi Israël tooñ te dëkk di ko tooñ te wéy di ko tooñ te am ñu koy dooleel ci tooñ yooyu ngir ne dañoo am doole am alal am intérêt bu ñuy seenu ci juif yi loolu képp ku bañ lu bon war nga taxaw dénoncé ko naqarlu ko Oustaz Saïd loolu moo doon li ñu doon résumé lan ngay euh, jeexale ñu yëkkati jataay bi xanaa di ñaanal waa Palestine sunu borom subhanahu wa jàppale leen euh, di wax jullit yi am nañu responsabilité bu rëy ci kanamu yàlla ëllëg jamono yi ñuy faatee sunuy mbokk jullit yëguñu ko mooy yëgaluñ ko sunu bopp lépp ci doomu aadama yi ñu ngi lijjanti nan lañuy amee lu ñu lekk ak lu ñu naan lan lañuy amee si ay kër yu rafet nan la ñuy amee ay villa voyage waaye jamono boobu am na ñoo xam ne li ñuy ut mooy nan la ñuy dundee mën a julli normal seen njaboot yi dem jàngi seen njaboot yi bu ñu xiifee mën a lekk bu ñu feebaree mën a faju oustaz àdduna bi yëpp di seetaan ngir lan ñi ñu bokkulal diine ñu ñëpp wan nañ ñu ne duñ seen ay mbokk ñun ñi mbokk diine nag mbokkoowuñu moo tax mu doon loo xam ne euh, luy jooyloo képp ku yëg responsabilité bi mu am ak responsabilité bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon sooy wax ñu naan la ay bidaa sooy wax ñu naan la lii lan mooy cosaan li jamono yooyu am na yu gën a garaaw junni yoon mi ngi xew ci réew yooyu ngeen jël comme misaal te du ngeen ca wax buur lislaam da koy dénoncé nanguwu ko kañ lañ ciy wax tànk xamuñu fiqu awlawiya lan mooy importance su digle lu baax ak tere lu bon lan mooy ay maratibam xamoo maqaayidu sharia amoo li nga xamante ni bii moom mooy al irshadul mujtama yan inkaaniya nga war a am ba mën a xam lu bon nga xàmmee ko ba noppi xam yan wasaa'il nga ko war a dindee ak nan nga ko war a dindee ak kañ nga ko war a dindi moo tax imaam xasanil banna kooku leen yéen yéen ñëpp al islaamu nizaamu shaamilun yatanaawaru al mazaahirul xayaati jamian moom dafa gëmoon ne nit ku nekk am nga sa mbir boo xam ne yaa ko moomal sa bopp ak loo xam ne ñoo ko bokk li ñu bokk nañ ci ànd juboo suñu réew naat suñu àdduna naat suñu xol yi naat tey de bu fekkee politique yi ñu ngi ñuy teg lu metti ñooñ diine dañu teg lu metti ñeneen ñi nga xam ne gëmuñu yàlla dañu teg lu metti ñu xaar kan moo ñuy defal ay jullit ñëwaat tegaat ñu lu ñuy metti su boobaa dañu am lu ñuy naqari kon nañu yëgaat suñu responsabilité nañu xam ne man raa minkum munkaran ku ci nekk maratib bi nga toll nang ca ne ñu ngi woo ñëpp nag ci rassemblement boobu ngay wax alliance bi incha allah xam naa boo ci ñëwee di nga ko gën a yaatal samedi la samedi samedi incha allah bu quinze heures jotee mhm. fële ca institut islamique ku sori yi tamit nga mën a wax sa mbokk yëgal ko ko l'essentiel mooy ne information bi jàll donte juróomi jullit rek a fay daje ñu daje fa sax ngir wan waa Palestine ne leen ñi ngi dundandoog yéen tiis wi ngeen di dund wan waa Israël ne leen li ngeen di teg Palestine ànduñu ci rek tabaarakallaahu loolu jar na ko jërëjëf Oustaz Saïd wa kam fi fi'atin xalilatin xalabat fi'atan kathira kon li ci soxla mooy qualité mm-hmm. macha allah qualité lañ ci soxla ñu am yëg-yëg mm-hmm. xam li xeex bi laaj mm-hmm. lan lañ ci war a def ak nan la ñuy sensibiliser ñu yëgul macha allah macha allah te xam ne du lu fi yem euh, ku xam mbir mi ba mu dooree ba léegi xam nga ne jeexagul moo tax tout temps rek jéego par jéego euh, fu mu toll rek fu xeex bi toll rek nañ wane ñu ni tamit suñu soutien jëm ci sunu mbokk yooyu noonu la tabaarakallah ñu ngi amaan mbégte lool Oustaz Saïd ci teewaay bi ci aaxiru zaman li nga fi indi euh, riche na bari na njëriñ yàlla yàlla fayal ñu leen yiw yow tamit yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen a doon euh, toog boobu ba léegi di seetaan émission bi jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen yiw waaye bu leen fàtte sunu mbokk yi di leen ñaanal ñaanal leen ñaanal sunu bopp la waaw ñaanal leen ñaanal sunu bopp la jafe-jafe yi ñuy dund ak ñoom ya ñuy dund lépp jafe-jafe la yàlla yàlla teggi sunu yos ñoom itamit ñu teggi seen yos daa fekk ne nag ñun bi ngay am jafe-jafe ba mën a toog di ko nettali bokk la kële nga xam ne ma nga gàddu ay bagages moom génn talut a toog di ko nettali tollowul waaw tollowul ñun nag naan facture yi cher na euh, woyofal ba woyofut injustice bi mi ngi am ci dëkk bi kumba am ndey ga kumba amul ndey yooyu ñu ngi toog yëpp di ko commentaire ñu ngi koy tal waaye kële moom lañ koy teg taluñu ko koo xam ne bu toogee ay bomb yuy tàkk mooy nekk ci nopp yi di ko sonal koo xam ne nii mën na toog immeuble bi mu nekk léegi ñu sànni ca bomb ay téeméeri téeméer dee ci fan yi maa ngi seetaan ci Al Jazeera ñu ngi menacé ab école ab école pour wane ne ña fa nekk nañ génn ndax dañ ko war a bombardé foofu lañ toll école boo xam ne genre internat yooyu la ay xale ñoo fa dëkk mais Palestine wala Israël ña ngi leen di menacé pour nañu génn noonu la ñuy menacé ba ci yenn hôpital yi léegi ñu ngi tàmbali di leen menacé pour ñu évacuer ñi nga xam ne ñoo fa nekk ndax dañ koy bombardé waaw ñu mel nii di dund lii am ay jullit yu jàpp ne loolu ñuy dund buñ ko tal nañ tal ñun suñ ceeb bu seer beeg diw gu seer geeg élection yi diw sàngam dana bokk ak du bokk euh, wax dëgg fa yàlla yëg-yëg bu mel noonu ci jullit dafa ma yéem lool waaw nanu su suñuy mbokk fu ñu mënti nekk ci àdduna bi lu leen di métti loolu la ñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal te loolu moo sabab tey ñu indi émission bi te incha allahu taala manifestation bi fas yéene ñoo bokk ca ña koy teewe ak lépp lu mel ne lu jëm ci lu nekk luy dëfal sunu mbokk yooyu bañ yëg ne am na mbokk yu jullit yu sori ci réew mu sori mu tudd Sénégal wax dëgg dajaloo nañu di dundandoog ñoon sunu jur yi ñu faatu benn famille benn famille boo xam ne maa ngi gis fukki nit ak juróom ñaar xaw ma juróom-ñett la ñu rayandoo ñëpp bokk benn famille ñu teg leen nii dem na ba amatuñ fu leen dañuy gas kàmb gu yaatu ñu jël ay téeméeri téeméer dugal leen ci biir dem na ba ay xale xam ne dañoo war a faatu ñu jëlal seen bopp seen seen euh, bindukaay bind seen tur pour bu ñu faatoo ñu mën leen a xàmme bind seen tur ni ñu tudd ku toppul la fa xew xëy na yaa amul yëg-yëg waaye ñay topp la fa xew wax dëgg fa yàlla am nañu yëg-yëgu xol bu métti ci la nga xam ne moom la teg ci seen kaw te ay bandi yu nu ngemb ñoo koy teg ci seen kaw muy waa Palestine yahudi yi Euh, seen nooneel gu bon gi njàgg noonu noonu jëmee ko ci lislaam ak ñooñ lislaam euh, nooneel googu rek moom mooy woy ba tey yàlla yàlla teggi tiis wi ci sunu mbokk yi ci Palestine ak fépp fu tiis tegoo ci aw nit ci kaw suuf te ñu leen ëpp doole wala ñu dooleel leen di ko teg ci seen kaw li lañ leen indiloon ci seen émission aaxiru zaman di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wasalaam. ooleekalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam